ñëw toog xam naa ni instant bi moom vraiment da ngay ñëwaat toog parce que vous et nous nii la parce que bëgg nañ am euh, question yu ñu la posé yu am voilà euh, kon nag Eva dama lay bàyyi nag yàgg sa salon bu yaa ngi boobee nga daal di waxtaan nag ki nga xamante ne tamit mooy Adja Ombelico parce que tey ñëw na je rappelle moo habillé ñëpp vraiment mais Eva euh, Chon tey en tant qu'acteur de la mode ñu gis ko Adja tamit boobu ba tey man yàgg naa ko def macha allah keneen mu ngi def liggéey bu am solo tey lan mooy sa question pour Adja effectivement Adja Euh, ah am na beaucoup de questions franchement mais dama koy jéem a tënk rek poser les quelques d' abord pour commencer déggoon nañ fi benn publicité boo xamante ni mu ngi doon passer sur la 2STV récemment que da nga waroon def tapis rouge mhm. le 19 décembre cela veut dire le samedi passé Exactement. au dernier moment ñu dégg ombilico annulé na mhm. c' est dû à quoi pourquoi euh, coronavirus moo tax ñu annulé événement bi euh, deux jours avant lañ ko annulé mhm. parce que comme euh, comme malade yaa ngi doon yokku euh, on a trouvé normal vraiment c'était la chose à faire annuler ko ba beneen yoon am nañu yaakaar nag xëy na léegi mu jóge fi ñu mën a reprendre événement bi parce que événement bu toll noonu c'était une grande première en Afrique mhm. euh, tapis rouge euh, dañu décider woon cette année def ko comme ni ko ñëpp di defee partout dans le monde mhm. un grand tapis vraiment y avait plein de personnes ay sponsors yu bari yu ñëwoon par exemple Miroir Events ñëwoon na indi ay oto mhm. muy pendali euh, oto vraiment de luxe yoo xam ne si la star yi naroon wàcc ak yéen mannequin yi yéen ñëpp wàcc ñëw yegg si ñëw ci tapis bi vraiment def ki édition bu exceptionnelle mais comme nii la ko yàlla bëggee ak corona bi. ñu bàyyi ko ba beneen euh, mhm. événement bu toll noonu nga préparé ko pendant des mois. Mhm. ba desul lu dul 48 heures ñu ni la. Euh, nga tëb ni annulé nañ ko par exemple à cause du corona ban impact la am parce que quand même 48 heures cela veut dire def ngeen la majeure partie des choses <laughs> waaw c'est très compliqué parce que charge yëpp pratiquement defoon nañu lépp finaliser rek ci desoon euh, communication bi gis ngeen ko panneau publicitaire yi ah, télévision on avait tout fait mhm. ba mu des loolu préparer les tenues li ñu waroon def yëpp def nañ ko ba noonu mais tamit loo mënul dara da ngay nangu waaw ah, c'est vrai mhm. lu ni comme ni ñu koy waxee rek ni nëpp loo mënul comme ni ñu koy waxee da ngay nangu mhm. d'accord mais Adja gis nañu sa relation d'habitude ak yi muy góor muy jigéen mais sa relation ak mannequin yi laa bëgg nga wax ñu ko tey sama relation ak mannequin yi gis nga ko tey bi ma soxlaa da ñëw non mm. yéen ñëpp pratiquement non en ndax man te ma sœur <laughs> yeneen mannequin yi ñoom ñëpp nag noonu la demee ñoom ñëpp seen sœur laa ñenn ñi sax seen yaay laa je peux dire mm-hmm. tout le temps ñu ngi ci man mm-hmm. dañuy ñëw ci man même sudul pour solal ma yenn saa yi dinañ am feneen défilé sax ñëw wut si bijou wala ñëw wut si dàll mm-hmm. dañu nekk nit ñoo xam ni dañuy entretenir euh, d'excellentes relations tout le temps ñi ngi ci man ñuy dem demlante su ma leen soxlaa tamit ñu bàyyi lu ñu jàpp ñoom ñëpp ñëw gis nga samay défilé ni muy demee ñoom ñëppay ñëw mais avant may ñëw ci robe yi dama lay poser avant dernière question mooy que Adja dañ la xamoon ci prêt à porter la ci li nga xamante mais léegi dañ la gis nga def meuble. waaw man da nga bëgg agrandir complexe wala loolu c'est c'est comment mën nga ñu ko expliquer. soo xoolee ameublement continuité euh, habillement la. Mm-hmm. parce que loolu lépp ci day yëngu ci lu rafet. Mm-hmm. parce que soo solelee nit ñi ba ñu rafet. mën nga solal kër gi aussi ba mu rafet ak décoration bi yëpp ce sont des choses yoo xam ne euh, dañu dem ensemble mhm. moo tax bi ñu bëggee ak agrandir suñu business xoolaat yeneen côté dañu trouver ne ameublement mooy suite logique bu suñu liggéey effectivement maintenant nañ ñëw ci robb yi ndax ku xool tey macha allah sama naataango yi ci plateau bi ñëpp yaa ngi papa salaam ñëpp yaa ngi bii mooy suñu deuxième robe ñu sol ko te lépp ajaala te Adja yooyu da nga am benn touche bu spécial en fait dañ la gën a xam ci li nga xamante ni moom mooy des robes de soirée. xaw ma yi mooy loolu jëlal ma <laughs> bu ndaag rek jëlal ma bii rek day tàng <laughs> t'as vu sa mais wax ñu tuuti rek quand même non bala ma wax robe yi damay wax ci ndaag mm-hmm. parce que dafa bëgg liggéeyam macha allah bëgg mannequinat ba amu ci sagom su ma daan def défilé daf ba daa xëy suba teel daw si jël si ma mm-hmm. ñu ànd di wër moo doon indi sponsor yi pour défilé bi mën a am loolu la daan def vraiment da daan nekk ci liggéey ba mu jeex tàkk ba pare xarañ mhm. euh, ba loolu laa ko wax nee ko ci loo nekk mu avancé du bett mhm. parce que amul demi mesure su nekkee ci liggéey day daw a daw a ba mu jeex sama événement da ko doon liggéey ba mu jeex su guddee mu sol yéeg ci podium bi ce qui fait euh, moo tax elle a manqué à maman samedi passé laajte na la podium bu mu nekkul moom macha allah dafa am fugg pëjëm xam nga ne mannequin da ngay am tëll man loolu laax toujours mannequin mannequin da am tëll waaye boo nee tëll ci pëjëm bi kenn xoolu la ko delluwaatal ginnaaw te ndaak dafa am tëll sama événement Radisson bi mujj dañoo toog ba mu yàgg rek ma dégg ndaak ñëwul essayer de parce que mi ngi woon ci télé bi amul jo mm-hmm. dégg ndaak mi ngi ci coulisses yi mën leen lu xew ñu abal ko robe mu yéeg parce que dafa nekk di ko seetaan mënul woon arrêté mu daw si ñëw waaw c'est ça dafa bëgg li muy def vraiment kontaan naa non doo bàyyi <laughs> dafa fekk rek tegguñu ko jëm non défilé boobu dama bàyyi woon défilé sama yaram bi tàng. ma jógee voyage rek ndaw directement jël benn robe mariée sol ko yàgg Kumba Gawlo je pense exactement yàgg Kumba Gawlo mais euh, vraiment kontaan naa parce que suñu collaboration rafet na mm-hmm. yéen ñëpp ku ci soxla ñëpp taxaw vraiment dama kontaan. ana Mika lu tax ñëwul. eh, eh Mika il est là je regarde <laughs> Mika mu ngi fi mais nii oh, la Mika tey na moo ñu ngi lay jaajëfal mais Adja dama bëggoon nga li tax ma taxaw mooy dama taxaw pour euh, euh, quand même delloo njukkal Axel delloo njukkal Tra mhm. delloo njukkal ñoom Fatou Jo mhm. vraiment euh, mhm. ñoom Marème Sy ñoom Alfi ñoom Mami Sobel vraiment su ma limee sax juum ñoom ñoom Adja tamit xale yi xale yooyu nga xamante ni vraiment ak ñoom Max ñu ngi def liggéey bu am solo et c'est le moment de leur rendre hommage xam naa ne nag après dinañ xoolal ak waa production parce que mannequin yi foog ñu ñëw lim naa ñu ah. jigéen ñi mais ñu góor ñi tamit ñoom Gilo ak ñoom ñëpp ñëpp a fi de vraiment ndax lool bu ñu ko defee dina doon lu rafet parce que mhm. mannequin yi ci dëkk ci réew mi dañu bokk dañ fi am wàll am fi part mhm. comme li ma la ko am dañ fa am combat boo xam ne il faut ñu porter ko mhm. ñaa ngi fi maa ngi fi ayda musiciens yi ñu ngi ci biir Salam Diallo il faut ngeen ñëw jàppale ñu Adja mu ngi ci biir ja ñiy jaay prêt-à-porter <laughs> styliste yëpp parce que il faut que ñu organiser le milieu il faut que ñu jox gëdd mannequin Sénégal il est yi mën a respecter mën a comprendre exactement c'est quoi le métier du mannequinat gars yu bëri effectivement passion la mais avant tout aussi métier la ndax mhm. bon la léegi dara gënul métti nga am 5 minutes pour sol 5 robes yéeg daw wàccaat dawaat ah. loolu rek coono la kon ah. liggéey la te liggéey boo koy def noonu il faut parents yi comprendre que mm. Adja ndax da nga am question boo koy waaw xam naa ni ci kanam lay doon parce que Adja li ñu ko war a laaj bari mais tey mm-hmm. comme li ñuy wax rek yow yaa moom sa salon xam naa li may def rek mooy euh, def benn tour bu ndaw parce que mm-hmm. ki nga xamante ne mooy Astou moom tamit dafa am euh, quand même euh, benn question bu am solo boo xam ne war na ko poser Aïda mm-hmm. robu bay rafet nag bu leen jaaxle moo tax may jaagar jaagari di jaay di jaay jaagar jaagari daal la tey salaam bu la neexee <laughs> Ndeye Sall waaw ndax euh, bon nuyoo woon naa sànq xanaa ma nuyoo waat rek téléspectateurs yi encore une fois di wax joyeuse fête euh, à tout le monde particulièrement à nos frères et sœurs catholiques donc ñu jaajëfal encore une fois ay de macha ak ci rob bu yanj bi. jaajëf aussi tamit Adja bi nga xamante ni c'est une sœur c'est une maman pour ñun ñëpp parce que man aussi j'ai eu la chance de travailler avec elle euh, vraiment chapeau à gis nañ liggéey bi macha allah yoon bi bi ñuy ñëw je pense euh, muy single baadoola bi donc mu nekk allah dafa saa fait un parce que actuellement boo gisee réseaux sociaux yi ak fépp tout le monde en parle macha allah snap yi TikTok yi ak lépp ma bëggoon xam est que tey par exemple euh, single bi dafa nekk album boo xam ne mi ngi koy xaar wala ko may fan si juste comme ça. waaw boo boo morso morceau Badoo la dafa bokk si euh, album la woon mais à à cause du Covid ñu woon génne euh, album bi si mois de décembre bi mais on avait prévu de sortir l'album euh, au mois de décembre mais ak Covid bi c'est compliqué. Mm-hmm. moo tax ñu jël si benn morceau boo xamante ni moo tudd Badoo la. ñu def vidéo bi génne ko e alhamdulilah bi ñu ko génnee euh, nit ñi bëgg nañ ko les gens ont aimé. fépp foo mën ci demee rek. parce que léegi way moom pour nga xam ndax sa marche sa ça marche yaa ngi koy xamee TikTok Snapchat. yooyu mhm, ñu koy ak ak statut. et mhm. alhamdulilah macha allah euh, yàlla defal nañ ci sutura euh, ba nga xamante ni en en deux semaines. je dirais am ah, vidéo bi mu amee un un une semaine. Mm-hmm. la am un million de vues sur YouTube. Mm-hmm. def deux semaines mu ngi ci un million à quatre cent et quelques presque a millions ah tout à ko gis ci réseau yi macha allah deux millions de vues sur YouTube. macha allah macha allah te loolu yëpp c'est c'est grâce à nit yi nga xamante ni. Mm-hmm. ñoom ñoo bëgg Aïda Samb lu mu génn rek bëgg nañ ko ah ñu ñu ñu ñu di ma support nag. Hmm? di nuyu nag dama fi am benn sœur boo xamante ni vraiment c'est une sœur. sama rax la ah Cathy euh, Chima macha euh, yàlla boole ñu depuis mille 2012 ans la ñu xamante euh, ba tey dara ñaawul mhm. daara ñaawul mhm. rakam sax moo gën a nekk sama xarit su kay na su na mooy sama xarit. kooku moom c'est ma petite sœur mhm. préférée Sénégal yëpp xam nañ ma ak moom. ah di ko di ko di ko ñaanal yàlla. Mhm. lenn rek moo ma jaaxal tooñ rek lay def. ni <laughs> ko gisee nii ni ngeen mu toog ci télé bi nii nag ne pat. kii la ndox mu sedd muy may muy rey mat dafa doy waar xale ndox bu yee ba xal ay nen la ndox mu sedd macha am na solo espérons que bientôt Covid bi na passé que ñu ubbi waat lépp incha allah en tout cas on souhaite bon vent voilà je pense que bébé aussi am na quelque chose à dire am na micro bi baax na micro ok parfait <laughs> di nga wax yow après yow comme nit nga posé question bi xaañ déglu bébé si am di fii du entre temps fii dafa am yoon non duñ ko ma yow yow tamit am di ko dañuy dal il faut il faut nga suivre fil conducteur bi fii du entre temps mënuñoo yem dangay toog bañ jox la <laughs> waaw bébé si am di xaaral daane dégg nga waaw euh, Aïda maa ngi lay nuyu bu baax bu euh, baax di jaajëfal ñi nekk euh, sa ginnaaw uh-huh. ñoom ñi nga xam ne ñi ngi def liggéey bu am solo vraiment donc j'avais juste une question parce que Aïda ah, gis naa ne que parce que Aïda gis naa ne que tu fais euh, tu es l'une des ci nouvelle génération bii nii ñu nekk di woy ci base de texte di woy ci message yu leer ma bëggoon xam ayda lan moo tax jëluloo option bi yenn artistes yi jël maanaam buzz bi daal ñoom lañ soxla woy lu leen neex mais yow fi nga ko teg da ko teg ci temps daal Euh, xam nga tey man dama xam nga li ñuy wax tout le temps sët mooy doon maam da nga mbapat nag te de man waa comme li salaam ah, wax ah. te pour man an bu ma nekkee bu ma yàlla parce que bu ma yàlla seppee ci ci nit yi def ma mu may wax ma mën a wax. nit yi déglu ma. bu man sama gémmiñ saa yu ma ci génnee rek war naa ci génne loo xamante ni njëriñ lay doon. c'est vrai que ne damay woy ci mbëggeel parce que nit laa boo xamante ni nii dama je suis trop sentimentale mais damay bëgg di génn tout le temps ci sama gémmiñ ku ko dégg jële ci leçon parce que loolu aussi c'est très important parce que way ñëpp a koy déglu mag dina ko déglu ndaw dina ko déglu ñëpp a koy déglu donc da ngay fexe ba nga xamante ni nii génération bu nekk yow mën a déglu li ngay li ngay li ngay li ngay li ngay def Mhm. loolu am na solo balaa kati chimère di jël euh, damay bàyyi rek amoro quand même nga jaajëfal mhm. waaw am di ci kanam nag boo tëjee ba pare avant mhm. kati kati day njëkk a dugg bu duggee am di soo ko tëj ndax xam a nga wax ji ah. a rafet ci plateau bi macha yi waa EDK dañ leen di jaajëfal ils ont été quand même les premiers les premiers sponsors à confiance te xam nga ni sponsoring dafa nekk lu am solo waaye tamit dañuy woo ñeneen ñi ñëw parce que visibilité bi nga xamante ne vous et artiste bu fi ñëw tamit di nga ci gën a gis sa bopp waaye tamit ku dugg tamit di nga ci gën a gis sa bopp kon EDK lay tàmbali ne leen vraiment euh, jaajëf euh, jaajëf nan laa ko waxee jaajëfal jaajëfëf waaw nee naa ko jaajëfëf <laughs> kon euh, waa EDK lay jaajëfal bu baax a baax voilà waa Jolof Chicken ñoom Abou vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ak waa Au Royal madame Diop jaajëf dëgg la loolu am na solo mandak d'amour tubarkàlla parce que li may wax bis bu set rek ba wax moom ki ci kanamay daan waaye ki ci ginnaaw koy def te ñun day am suñu mbir fu muy toll foo xam ne suñuy partenaire duñu am seen fay ndax tey suñu geek suñu sañse yi bu ñu fi toogal amuñu sponsor kenn duñu seetaan ndax danañu xam ne amuñu valeur uhuh. waaye nag tubarkàlla ndokk ba nga xam ne ñun ñooy stand by sax naan nañu xaar ba premier épisode bi jeex ba deuxième. dëgg la bu ñu fukki sponsor ñu ngi neexoon dal ko ci table bi. Mhm. mais xam nga vous nous fast track la amul toogaay. dañu jóge ci lii dal ci lii jóge ci lii dal ci lii moo tax di ci dajale sponsor yi bari sax duñu arrangé. Mhm. waaye ñi bëgg dugg fii duñu jeex. Mhm. ba tax na ci loolu laay jaaree di gërëm ki nga xam ne mooy Jolof Chicken. Euh, Abuka ak Edeka di leen gërëm di leen ñaanal yàlla guddal seen i seen i su ma waxi démb mooy su ma waxi tey saaf ginaar jarte woo tubaab nanu gëmaat suñuy doomi réew nanu bàyyiwaat xel suñu askan waaye nanu gën a gëmaat suñu candidature nationalité ba ca nekk muy di jàppale suñuy mbokki sénégalais yi nga xam ne tey ñi ngi ci réew mi di def li nga xam ne tubaab yaa ngi koy def ñu war gannaaw tubaab yi te jàppale leen ndax ñoom lan leen di jox ci suñuy mbokk ak suñuy rakk ak suñuy jarbaat lañ koy delloo saaf ginaar jarte woo tubaab EDK jolof ci kenn moo xew ci jamono daw leen di ko jëli ci lu gaaw point de vente yaa ngi partout à Dakar ba génn na Dakar sax ci banlieue bi léegi mu tàbbi ci région yi kon waa EDK yàlla yàlla guddal seen fan tëbëri seen cër mm. au ni ma ko waxee bit lu sel rek mooy ndox mi sell mm. mooy ndox mi wóor mooy ndox mi xam ne tubaarkàlla macha allah boo koy naan di nga yëg sant ci sa yaram waaye di nga yëg xel mu sell ci sa yaram ndax ndox dafa nekk loo xam ne mën naa ne ñaar ñaari éléments yi gën a am solo ci dundu doomi aadama ndox ci la bokk gannaaw deret ba tax na macha allah euh, au royal ñu ngi leen ñaanal ñoom it seen jàmm yàgg free bus boobu nga xam ne tubaarkàlla macha allah 4G foo ko natt ci tawféex ak xéwal weesu na ko waaye tubaarkàlla macha allah direct bi koo ne allo day mel ni yéen a ngi jàkkaarloo ñooñu ñooy waa Free yàlla seen jàmm yàgg duñu fàtte waa Samsung ndax ñoom it tubaarkàlla macha allah ñëw nañu tàbbi ci langue gi te langue gi dafa ris ba noppi ku ñëw ris na ku ñëw ris na waaye ndokk nag ak ñi ñëw waaye maa nag damoo waaw maa waxoon maa jëfe bu ko bu ko génneegum wala teel la kii day toj ko génneegum teel la dama bëgg rek ñu def benn mention spéciale waaw damaa gis sama noon yi ci plateau bi <laughs> mu kuti àddina dama melas ci kooku non non non dañ laa yeb yow dama wax lu mu dul def lu wax def naa non yow astu lay annoncé waaw mu mënu maa ñàkk ñëw ci moom mandat d'amour dëgg la wala da nga bëgg ñëw ci partenaire ma madame Diop waaw dafa nekk koo xamante ne hmm. au-delà de vous dafa bëgg waa waa waa dafa au-delà de 2STV bi dafa bëgg waa vous kon madame Diop vraiment li nga xaate ndox bi daal na ko ñëpp jëndi nag ñi nga eh, xamante ne ñoo nekk ah man xës-xës laay waxal parce que xës-xës ñëpp a ngi naan ko dafa réglé wul ci ñu nga xamante ne mooy bouteille bouteille ñu defal ñu vous et nous loolu daal laa bëgg na ko ñëpp dem jëndi mooy buuru ndox yi kon madame Diop ñi ngi lay woo ci li nga xam ne mooy eau royal waaye ñun tamit cër gi ñu am ci yow bëgg na nañu gis suñu bopp bu baax baax a baax ci sa barabu liggéeykaay bi nga xam ne mooy ndoxu sell wi nga joxe di Eau Royal mm-hmm. mais man rek dama dama bëgg ñëw tuuti ci xale bi nga xam ne tey moom lañ dalal tey mm-hmm. guy gu gaa ngi nii mag ñee ko jàngal waaye moom mooy jàngal ndaw ñi mm-hmm. xale yi nga xam ne tey ñu ngi ci nouvelle génération bi ñëw diggante 2010 jàpp 2020 def 10 ans de carrière dugg ci showbiz bi waaye ñoom ñëpp sa la dëgg la lak ko liggéey la ak gëm boppam ak nëbbutu Mm-hmm. ay da budul plateau ci réew mi laa dëkk fu na laay dem mm-hmm. papa salaam fu na laay toog ku na laay waxal ku na laay fréquenté 2STV mm-hmm. ba 2STV laa gis ay dama ah bokkul ci benn jotaay bokkul ci benn fréquentation doo ko gis resto doo ko gis baar doo ko gis baat doo ko gis fenn dem liggéey daan doolam wàcc ñëw toog këram am jom lool waaw ah, fexe na ba doon star star du late Youssou ma ko wax Youssou ma ne ma ma ne ko naan mu ne ku ñuy fay di la seetaan doo late ku ñuy fay di la seetaan doone fuñ na njaax na lu ñuux da ngay nëbbu te ay da fexe na ba nëbb boppam fulla ak fayda ak jom ak liggéeyam képp koy génne waaye mu mën a way nag papa salaam xale bi doon na maam ñaa waaw dama ne maam daara hmm. maam kinne hmm. maam sooda maam xaar ma jaaga liñ fi def mu rafet benn gone du ko yàq des koy mën a jéem a yàqal ba yàqoo ca des koy jéem a mën a defar ba defaroo ca te ay daan koy defar mhm. yàlla nga yegg ni aw yoon ma ne xam nga dama laa bëgg sama xol bi laa def ndax ndaanaan nga mhm. man li ngay def ba pare responsable ba noppi gëm sa bopp respecté sa bopp te c'est rafet yàlla nga yeggal da nga waxee xol ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax euh, waaw nu mu tuddati nañ dem ci yow <laughs> waaw balaa maa dugg ci leneen kat yi nañ dem ci yow gaaw ñu baaral ko vraiment euh, waaw parce que tey dama bëgg nag nga ñëw ci caat ñu koy jaajëfal mais nee nga ma da am benn message pour Aïda balancer message ñu daal di ñëw ci caat di ko jaajëfal tamit bu baax a baax caat te caat tamit 2STV warul tas nekk benn kii dama bëgg tey buñ ñu la woowee madame Ndiaye bu ñu la woowee caat nga baax nga ñëw décembre baa nga ñëw 31 ñëw nga fi ñaari yoon woon nañ la nga naan da ngaa busy da ngaa occupé te ñaari plateau nga def <laughs> ah waaw ñoo far. ah yéen yi dañuy ñëw xale yi teel a tàkk rek après bu ñu leen di dootoo leen disponible. mbaa doo ñu def noonu bu ñu bu ñu waxtaanee lañu jubóo. bu ñu waxtaanee jubóo yow lañ yow lañ bëgg de. non loolu loolu la. waaw kon kat yi naa la bàyyeeg euh, Thiat. jaajëf waaw man nag euh, bien avant may ñëw si Thiat dama bëgg ñëw si ay Aïda Samb juste lancer benn petit message rek man moom aw ma question sax bu ma ko posé donc euh, sama sœur la ay de pas une amie c'est une sœur yàlla daf ñu boole depuis 2011 2012 mm. donc yaakaar naa ne loolu du tey nit ku baax la nit ku yiw la nit ku kuy réglé la nit ku xam boppam la ku am personnalité looloo tax xëy na tey ji yàlla boole ñu dañu xawandu doon nag ay caractère moo tax yàlla boole ñu mais nag amitié bi man Aïda maa ko xam ñëpp waaye li ma si jaaxal sama rakk daal la defal nii nekk ak ma meilleur ami ñoom ñaar fanaan benn lal man loolu ma si xaw a jaaxal si plateau bi daal la ñu gisantee nii de temps en temps wala ñu crochante si tali bi mais Aïda man xamaltuma la dara gisatuma na déggatuma la loolu daal tey xamaloo ma dara Mbacke li ma ko xamal. wax ko ngir yàlla may na ci benn may ndox mu sedd la muy rey na mariage bi ma ko mën a takk. elle rek lu ma naqari lu ma njëkk ba pare wala. <laughs> ah nit sama yii sama rakk la ah moom tamit xam nga yàlla moo xam vraiment mm, moo xam vraiment boole. bon ay damaa ngi lay félicité di mm. ñaanal yàlla album bi nga xamante ne jii waroon na génn malheureusement Covid moo tax lépp bloqué maa ngi ñaanal yàlla nga am si succès bu bëree bëri te mu romb sa njort incha allah rabbi te mu noonu sa njiglaay voilà donc su ko defee ñu ñëw nag si Thiat la main d'or macha allah gis ngeen plateau bi passé cat moo fi nekkoon mu def fi macha allah bi fi boo xamante ne ñëpp ñu ngi koy waxtaanee ba léegi xam nga tey ñun nag dañu anticiper suñu 31. Mm-hmm. tey nga ñëw encore defaat bi fi boo xamante ne macha allah moo raw sax bale nga fi indi woon mm-hmm. donc cat tey dafa mel na nga génn si ay fruits de mer ah ay mm-hmm. langoustes. petit four hmm? euh, kat yi tey dañu génn ci ay langoustes farcies. langoustes farcies comme dañu nekk ci fin d'année bi. il faut que ñu présenter ay affaires yoo xam ne ni dina neex nit ñi. vraiment comme de mer yi. moo tax tey ñu indi leen ay langouste farci déjà langouste farci nag euh, genre Adja sama copine moom xam na ko bu baax <laughs> ah yii nii ah yii ay langouste farci la maintenant indi nañ man gis naa Omaro commencé na sànq barkeelu ci ah, langouste yi de waaw waaw Omaro xewlul na ba pare mhm. moom gis na boobam mu des ñoom Papa Salam mhm. ak ndaat mhm. léegi yii ay brochette mixte à l'oriental la ay brochette ah, mixte ah, à l'oriental euh, waaw benn lañ ko defaree lii ay brochette de lot la lot waaw yuñ pané la waaw mais dafa saf ah, beneen affaire la bi non macha allah dafa lañ encore. Euh, li plateau salade la. non salade la waaw. salade la bi tamit mhm. encore euh, salade salade charcuterie la. bu am jambon charcuterie. mu ngi nii en même temps ñu defal leen euh, sauce oignon. Mhm. Ah, indi leen plateau yi nga xam ne dafa am ay variété de salé ay brochettes de gambas yi ngi ci olive marine et ah, ay quiche lorraine ak sauce yi. ak sauce voilà vinaigrette yi euh, comme accompagnement. waaw comme accompagnement voilà jus yi tamit gingembre. voilà euh, bisaab comme ni ngeen ko gisee daal. Euh, yëpp ngi fi gisal seen bopp. voilà à chaque fois dama naan affaire yi moom. de mhm. publicité. oui publicité nag ñëpp ko soxla. Mhm. mais vraiment peut-être tey jii su neexul woon. mën na am lu doo fi si waat. dëgg la mais da nga def mu neex. Mhm. présenté mu rafet macha lekk bi set na. sell na neex na te lépp mu ngi place am. dëgg la dara ëppul. macha allah donc ñi ngi mën la jërëjëf Omaro yàmbar nga liggéeykat nga xale bu am jom nga jaajëf yaa nga def lu baax ci réew mi ñàkk laa seeti wóorul man lu may xewleek yaa koy togg yàlla sa jàmm yàgg merci beaucoup loxo bi saf na si luy sa nga mhm. tey sell na yàlla nga dund merci beaucoup jërëjëf waaw man kañ lay wax. yow yaa ngi ñëw yow dañuy woo di gis nga ñuy baaraan ndax émission bi léegi mu jeex. ah jox la ma man ma léegi yow sa abi wuy ma fii da nga boo bëggee yàq da ngay wax ak yow ndax baal ma rek. waaw xoolal say sëñ yi da nga ko fi bàyyi. wuy ma laa Ndiaye lii du ñu ko fi may de. laa Ndiaye xool ma fii am na lu ñëw. tepp waaw fii fii dafa am nu muy doxe doxewul neen xam nga entre temps <laughs> ah, entre temps wax lu la saf la def lu la saf fa laale sànneeku naaw ca fa la neex waaye fii fil conducteur la oh, fii pour nga wax sax des na lay def ay code signal na lay après yaa war a wax amul jékki-jékki rek fël fii amul yooyu. yow xamoo sa bopp dama nga toog. <laughs> Eh, yow kii yow yow yow yow Amaro dafa ndàkk. kii moom dafa ndàkk rek bu mel nii. garab mi ñëpp toog. waaw ndaanaan yëpp toog. waaw bi ma toogee Sénégal gi toog ci saal bu dégg nit ñi di yuuxu seen kër yi. di di apprécier man xaw ma woon mm. <laughs> man sama émission man nekk te ñun ñett nit ñi seetaan si ñu. <laughs> entre ça moom loolu amul ma yàlla bëgg a tee rek na ma fa teggi te te ma teg ma fii. non bëgguma ba daf la ndax bu ne ay déglu ma wax la parce que li nga entre temps déglu ma wax la entre temps nekk te émission la boo xamante ni ñett ñi da koy sitante suñu si lañ waaw du dara <laughs> yow foofu du dara mais lu tax amoroo woowu la ci lu tax amoroo amoroo mais la ma jaaxal programme bi li mu laaj fii attanoo ko fii niveau. Eh, fii niveau intellectualité bi li mu laaj. ay ay ay non telloo leen ngir yàlla xam nga la may problème mu Omaro bu ko jox seen doqale bu ko xam nga la may problème mu dafa éteint. li <laughs> ñu naan éteint éteint éteint mooy. mooy mooy a <laughs> fii di nga plateau bi bi ñu ko yóbboon France. Mm. waaw bàyyi dóor bi. France. Mm. bi ñu ko yóbboon France. ngeen war a wax waxu waxu tubaab. Mm. ah non. internet yu bëri dinañ réer. <laughs> waaye heureusement ñu ngi wax de. Ah, wax ji ak dafa ko moom. heureusement ñu ngi fii ki ngay présenté rek fi di ko tubaab. xam nga ah. man xam naa lépp ndax. day yow yow yow nga ba am am nga bac am nga bac plus 4. mais ñu loolu tax ñu topp si ginnaawam mu ñuy jàngal. loolu tax ñu topp si ginnaawam mu ñuy jàngal. ma ne xam naa lépp daal boo dem tas ko. fii fii waaw ah, kenn dégg si tubaab. ah mais loolu tax ñu topp suñu ah, ginnaawam ñu jàngal ñu wax ko kenn kenn. yow déggoo tubaab kat yi déggul tubaab yow seen góor waxi na ko salaam moom. waaw doo déglu ñu tontu waxoon na bu ñëwee day yàq na dégg naa dégg ko micro. dégg naa la man je suis en master marketing et communication bébé si am na licence am yàgg na. yow ku la bàyyi ngay nga ku la bàyyi ngay ngay tontu kii dama ne déglu ma ma la fii déglu ma asu déglu ma asu déglu ma ala asu. mais maintenant maintenant continue l'émission en français. voilà voilà oui, si tu veux. allez je veux le. benn yéen rek la am. waaw mooy fexe balaa jotaay bi jeex ngeen xeex ci seen biir. <laughs> Ah, benn yéen rek la am. seytaane la boo xam ne eh. seytaane la boo xam ne c'est pas Aïda. yàq kër gi rek ko tax a jóg. waaw ma ma ma ma j'ai viré ma parole avec Aïda. Hmm. Aïda jàkkaarloo ak Aïda. depuis je connais Aïda. en 1997 je crois que. Hmm. je crois que c'est 97. à Douta Seck. Hmm. c'est une fille. brave. en ce moment Aïda il entraîne <laughs> octave. boobu ngi jàng octave di way. non li ma neex ni ah. moment en il entraîne octave. à maison de Douta Seck. mooy des arts. depuis lors. depuis là. je connais ay sax yow je connais je connais je connais je connais ah. Ah. kon kon yow ndekete ku antécambrien nga. entre. <laughs> yow da nga antécambrien. a antécambrien. à l'époque de néolithique nga existé ba léegi da nga yàgg longtemps néolithique pas. yéen xam nga yéen def leen daal yéen a ma yàgg déglu ma rek. <laughs> Amalico je le connais ah je crois que c'est 99. Ah, depuis rond point JVC. boo paree nga daaneel foofu. nest pas on, on fait des défilés partout je l'ai animé partout c'est vrai ou c'est pas vrai kon maanaam table bi ñii ñëpp samay xaral caat mii ngeen gis ne ngeen invité ko man ba may am xaalis dëgg caata ba doon toggal laaj hmm, da nga daan ah daan non daanoo mu gën a bëri xaalis dama bàyyi lépp waaw léegi nag ndax tamit waaw je connais borom tamam gi na ñëw nii. à quatre-vingt-quinze. yaa yàlla man man man man man ma juddu. man ma juddu ba ci démb Ndiaye juddu ma quatre-vingt-quinze. déedéet wàññil. yow de yàq loolu est-ce que du quatre-vingt-quinze. deux mille la deux mille. benn loolu du quatre-vingt-quinze la. laa xam daal yàq der la bëgg de. yaa ngi dégg Omaro maa ko ngénte. waaw loolu moom c'est vrai waaw loolu maa ko ngénte. loolu xeex ci ngénte waaw kon booy la yow sa ngénte ñëpp. maa ngi lay woon seize yi moo lay woon seize yi c'est vrai waaw kati xam naa ko depuis 2000. waaw léegi yow xanaa da nga réer léegi buy ma bul bul kii yor émission ba damaa bëgg nga. baax naa dara waaye léegi baax naa dama wax ni ku nekk ni ma la xamee rek. leen ku nekk li ma wax leen loolu. kaay bëgg nag man chaque samedi day may invité fii. dinaa seet parce que xam nga ni bii mooy dernière émission bi janvier la ñuy démarrer waat euh, deuxième kii bi euh, mooy mooy bii mooy dernière décembre après ñu daal di lem après ñëwaat waaw léegi <laughs> euh, sans plus tarder bàyyi tama dafa am loo xamante ne man dama koy bëgg mooy damay bëgg yenn saay buusanu comme bii mooy dernier bi ñu daal di lëmbe bu dara sedd na lépp yëngu bu dara sedd Amaroo sànq nee nga ma dafa am loo xamante ne da nga ko bëggoon wax mhm. yow laay déglu dafa am lu ma nar waaw loo nar man ak Damour dama la ne mm. dama dama bu ne lëmb sa soxla sa xel ko ñulug jébal ko sa xol mu yàq ko taaj ko signalé ko nit ñi ñu xam li nga nar dëgg la mm. jotaay bi day toll foo xam ne faw nag ñuy dellu ginnaaw dëgg la di bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ne ci suñu ginnaaw du nu ba max ku amul wéeruwaay ñoom ba max ku nu ba max daanu woo rek fa nga wéeru mm. bii tey daf ci koo xam ne bakkan la ki ba mu doo rek tey te dama ko bëgg a sargal bis tey mm-hmm. yéen jigéen ñi nag ku ne sa masak di ah, ma foog na ngay woote non non dafa am da ngaa bëgg dugg ci coulisses am koo xam ana laay laay pareel dafa am koo xam ne tey andi almara jóge na lépp yëngu tey bu dara sedd na lépp yëngu bu dara seetlu na lépp yëngu. dafa am koo xam ne bakkan la joxe ci émission bi bettal ma leen. <laughs> la ci teg bakkan. di nga wax nag ba ñëpp daw. te nag mooy dernier. dooral tabagi dooral ma tabagi dooral ma tabagi dooral ma tabagi yow. Eh. dooral tabagi ma sargal ko. ani la bu jëy laay seet. Ah, ah. ana lamp fu mu toogee gis nga gis nga lamp gay foo toogee. lamp ngay foo tooge lamp ngay foo tooge lamp ngay fu mu tooge e loxo waay loxo waay lamp ngay fu mu tooge lamp ngay fu mu tooge lamp ngay fu mu tooge e loxo waay loxo waay eh, lamp ngay fu mu tooge lamp ngay fu mu tooge lamp ngay fu mu tooge su bu toogee jërëjëf ba amatoo micro yow euh, waa léegi lampe téyel parce que xam nga yow technicien yi danga laay laay technicien yi ngay làq waroon nga leen wane ñuy daw léegi lampe yow tey dañ lay bàyyi parce que quand même liggéey bi rafet na dama bëgg rek téléspectateurs yi ki ngi ci nag mooy lampe euh, bii di ñëw di laa leen wan kuy am njaay nii laay bettee fu ma neex laay fëllee loolu kenn mënuñ ci dara nag na xaar fu ne léegi nag lampe tey production bi gis nañu macha allah ni yi rafet na te nag nañ waxante dëgg nuñ koy waxee mooy boo boo jalee sa sa bopp nuñ koy waxee ku jox sa bopp booy séddale sa bopp waaw yaay ëppale kuy séddale ci mudd yu njëkk ya nga ci sa bopp raa ci jëmale mu kanam <laughs> ah euh, muro yaa dëgër fii waaw <laughs> lamp tey programme yi nu muy demee tey bàyyi làqatu bi aca waxal wax yombul ñëwal non <laughs> waxal waxal waxal